رسولنا أحمد صلى الله عليه لي بانت به علاه رسولنا أحمد صلى الله عليه لي بانت به علاه بركة المختار لا تداهى في أبد وسبق لا يداها xew-xew yi nga xam ne moo gën a fés ci atum ñaareel ba maanaam bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam defee ñaari at ca madinatul munawwara am na xew-xew yu bari yoo xam ne ñu ngi koy dégg ci lislaam ca di ko dund ñuy fàttali rek ne xew-xew yooyu noonu ci atum ñaareel ba la xewoon tey danañ leen tuddal tollook tolloog juróom-ñetti xew-xew yoo xam ne ci atum ñaareel boobu la xewe woon bokk na ca xew-xew yooyu mooy bu njëkk buñ laa julli julli di ak yonent bi yépp buñ laa julli baytul maqdis lañ daa jublu baytul maqdis mooy jàkka jooju nga xam ne ma nga ca xutsu ca Palestine ca tey Israël nangu ko ne ci moomeelam jàkka joju mbolam yonente yi ko jitu won yëpp fa lañ da julli mom lañ da tudde khiblatul anbiya waaye bi nga xamé ne def nañ madinatul munawwara ñaari at ci atum ñaarel bobu rek fekk yonent bi bëggoon na lool sun borom jox ko ndigal mu bayyi baytul maqdis ndax yahudi yeeg ñu bari ci diine yi bu ñu julli fa lañ yi jublu bëggoon na yalla jox ko khibla bopam bo xam fa lay jublu ca foofa it mu bëggoon mu doon kaaba ka kaaba gu tedd googu nga xam ne euh, ma nga ca màkkatal mu karama waaye ci atum ñaareel ba rek la sayyiduna jibril ñëw ne ko borom bi nee na xam na ne yow bëgg ngaa jublu màkka lool jox na la ndigal nga jublu ca kaaba ka di fa julli booy julli nga jublu fa loolu ba ko waxee julli gam njëkk a julli jublu ca kaaba ka julli takkusaan la ci ni ko borom xam-xam yi waxe xew-xew bobu ci wéru chaabaan la xewon wéru baraxlu ci nesfu chaabaan manam fukki fan ak juróom ci wéru baraxlu sun borom diko ko ci alquran nan khad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka xiblatan tardaaha fa walli wajhaka satra almasjid alxaraami wa xaysuma kuntum fa wallu wujuhakum satra wa inna allasina utul kitaaba la yaclamuuna annahu alxaq min rabbihim wa mallaahu bi xaafilin amma yaamaluuna suñ borom di ko ci nettali di ko ci jox ndigal muy jublu léegi ca masjidul xaraam mooy ci kaaba gi tegal ko ci ne ko sax dana bari ay commentaire yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo gàttum xel dana bari wax yuñ ci wax ci changement boobu am waaye luñ mën di wax rek yow nang leen tontu ne leen penku bi ak soow bi yépp ci moomeelu yàlla la bokk te sun borom mom moy ginni ku ko soob ci siratul mustaqim sayaqulu sufaha sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها خل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم كون لولو خيو خيو بوبو تي اتوم نيارال بلا خيو وون خيو خيو نيارال مي موي ويرو كور ييغي ديغ ني ديكو وور Eh, mu bok ci ponk lislaam yi moom ci atum ñaaral bi la ko yàlla sant jullit yi su wéru dikkatee ñu di wor sante ko yit yonent bi ak kep ko bok ci xéetu yonent bi ci l'islam ne ko faman minkum ash shahra falyasum ku fi wéru fekk rek nang ko wor lolu ci atum ñaaral bi la ko waxe woon waaye it amaan benen ponk ci ponk lislaam yi it ci atum ñaaral bi la ko yàlla muy asaka natt asaka nga xamne momit ci ponk yi la bok at mu ñu di def ci ko xamne ni ko xamne ni sart ye ya man na ci mom kon ñaari ponk ci ponk l'islam yi yo xamne ni nii yépp ci atum ñaareel bi la ko yalla santaane moy koor ak asaka waye ci atum ñaareel bi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane li ñu tuddé asaka yi murum koor nga xamne bo woré ba ca bisu bori kori ga dang koy comme ni ko fuqaha yi diglé momit ci atum ñaareel ba lañ ko ñëk def waaye ci atum ñaareel bay lañ njëkk julli li ñuy wax jullik it muy jullik korite bu ñu waree ba weer wi mat ñu dajaloo julli jullik it feetu bis boobu muy bisub korite atum ñaareel ba lañ ko njëkk a def ca madinatul munawwara atum ñaareel ba mbokk yi bari na xew-xew yi ci xew bokk na ca xew-xew yooyu noonu muy diggante sayduna ali mi nga xam ne abu taalib mooy baayam ak soxna fatima mi nga xam ne mooy doomi yonent bi alayhi salatu wasalaam di caatam mu jigéen ci atum ñaarel bobu la seen digënté lañ daganal seen digënté ab sey am ci moy digënté sayyiduna ali ak sayyidatuna fatima ci atum ñaarel ba lañ def digënté bi sey am ci danaka sax ñom ñaar nyonyo, euh, li ëpp ci sëtt yonent bi alayhi salatu wassalam ci ñom ñaar ñoñu la sokk ko surafa yi ngay dégg yépp ci ñom ñaar ñoñu lañ sokk ko danaka sayiduna ali biñ koy may soxna fatima mi ngi amon ñaar fukki ak benn soxna Fatima it mu ngi amoon fukki at ak juróom bi ñuy def seen diggante ñoom ñaar waaye it bokk na ci xew-xew yi nga xam ne xewoon na ci atum ñaareel boobu mooy xeeti xare yu baree baree bari yoo xam ne ci lislaam ci atum ñaareel boobu la xewee xare bi njëkk a xare ñu di ko wax xaswatu xaswatu waddaan wala xaswatul abwa moom it ci atum ñaareel bi la xewee ndax dégg nañ démb ñu wax leen ndigal li ko yàlla jox ngir mu jihaat Eh, atum ñaarel bobu kon xari bi ñëk ci l'islam ci atum ñaarel bobu la xewé waddaan nak ab place la bo xamni ni ci côté medina la nek aw yoon la bo xamni wa makk dañ faral di jaar yoonent bi demone fa ngir xaar leen fa ngir bëgg na laaj leen alal yoy nga xam mom la mom lañ nangu ci julit waye kérok xex mu jut am ndax wa makk dañu ba ñëgé ni ma nga fa dañu teggi jaar wenen yoon kon genn gam gennon dem wadan ci atum ñaareel bi la xewe woon waaye it atum ñaareel boobu mbokk yi ci la xare bu mag boobu nga xam ne mooy xare bi gën a mag ci lislaam gën cee siiw bari ci ay xew-xew yu ci am yoo xam ne nii dana baax loolu ñu di ko nettali lu bari mooy xaswatu badrin al xare badar boobu ngay dégg euh, yonent bi teewe woon ko saxaaba yu bari teewe woon ko bari ay kiimtaan yu fa feeñ moomit ci atum ñaareel wi la xewe woon moy xare bo xam ni ay kemtan yu bari da ca feñ yu feñal ne yu wane ne euh, yalla sun borom mi ngi and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam luy wané it ne gëm yalla rek mo am mo am solo ñu bëggee wacc tay wa ak la ko sababoon bu ñu dellusiwaatee waté allah ñu àggale ko fa ñamon lepp rek ci tënk ginaaw ba nga xamé ne sun borom jox na ndigal yonnati bi alayhi salatu wassalam te mu fayyu ci képp ko ko tooñ muy aaya boobu ñu waxoon ne jox na ko ndigal léegi nag mu jihaat loolu ci atum ñaareel ba ginnaaw boobu nag la yonent bi alayhi salatu wasalaam commencé di waaj moo ko nitam saxaaba yi di defar seeni xeej ñi di defar seeni jaasi ñuy waaj bu baax a baax a baax a baax ci xam ne yàgg-yàgg ab jàmmaar loo dana mas am ak nit ñi nga xam ne ñoo leen génne woon màkk waa màkk it ñoom it ñi ngi doon yëg bu baax a baax fi alquran ji toll yëg nañ ne nyom ñi ngi waaj ñoom jullit bu baax a baax a baax a baax kenn ku nekk sa morom yaa ngi diglu ak luññutu sa mbiri morom ci loolu li nga xam ne moo sabab xare badar mooy waa màkk dañ def bunyi bu marché jotee marché mars ñu war a dem ca saam ñu defandoo groupe groupe boobu ñu daa defandoo nga xam ne day doon marchandise mu bari alal ju bari loolu lañ di tudde ci wolof am njëg njëg mi nak bi mu bàyyi ko màkka jëm Cham ca marché Cham ba pour nga jóge Màkka jëm Cham fokk nga jaar Madinatul Munawwara moo tax bi njëgg mi bàyyi ko Màkka Abu Sufyaan jiite leen Abu Sufyaan mi nga xam ne moo mujjoon nekk sangub Xurays sangub waa Xurays gépp waa Màkka ginnaaw bi aboo Taalib faatoo moom sax ginnaaw bi tuub na waaye lu jiitu Badar yooyu noonu ci at yu njëkk yooyu duggagutoon ci lislaam Abu Sufyaan bàyyi ko màkk jëm saam yonent bi jot nay information yu wér ne Abu Sufyaan bàyyi ko na màkk yor njëgg moo xam ne nii ci histoire arab ci mosuñoo gis marchandise mu toll noonu mu riise noonu ci alal wax nañ ne lu mat junniy giléem àndoon na ca giléem gu ci nekk dañ ko sëfoone ki marchandise ba mu fees dal ca loolu li ko waral mooy alal yu jullit yi i nga xam ne ñoo dëkkoon màkk lañ nangu moo tax ñu gën a riis lool seen alal jooju ñu nangu ko moo tax ñoom ñëpp ñu maase bari alal lool ci loolu kila ci la Abu Sufyaan jaar Madinatu Munawwara ba mucc na jëm saam yonent bi yëg na ni Abu Sufyaan romb na fi jàll waaye lim doon diisoo ki saxaabaam mooy bu aboo Sufyaan di dëpp est-ce que waruñu koo kar jëflante ko ñoom loolu nag joxe wutub xalaatam waaye daa dajale saxaaba yëpp di leen ci laaj xalaat Bimda dajale sahaba yep di len ci laaj xalaat di ci diisoo ak laaj len ci xalaat abu bakrin mo ñeuk laaj ndigal ngir wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko am nga ndigalul wax mu ne ko yow yaronte yalla bi day ñun ay julil lañ te yaay suñu kilifa fo jëm rek yow lañu andal ci loolu nga nga xamne fa nga jëm fa suñu yene depp jaayante nañu yow ba loolu yaronte bi da ne ku amar xalaat Omar wax lu melni li Abu Bakrin wax bam pare ku ñaan naan momit wax wax wax ju rafet li Abu bakkar wax tekke na sax ñun day aw nit lañ woo xam ne nii duñ bokk ak nitu Moussa yi lañ daa wax nitu Moussa yi lañ daa wax Moussa naan ko xeex daal bu ci desee yow yaak sa borom demal nga xeex waaye ñun jullit yi dañ naan la bu ci xeex desee ñun ak yow ñooy ànd ak yow ba xeex ba jeex yonent bi alayhi salaam ne waat ku ci amaat xalaat booba li mu bëggoon rek mooy xalaatu waa ñi nga xam ne ñooy nit ñi ëpp te bu xeex amee ñoom buñ ci jàpput Euh, nañ ko bëggee mën naa bañ a demee noonu moo tax bi yonent bi laajaat xalaat kuñ naan Saad ibnu Muaas ne ko yow yonent yàlla bi dafa mel ne ñun waa saar nga bëgg ñu wax yonent bi ne ko waaw yéen day laay xaar ngeen wax Saad ibnu Muaas ne ko yow yonent yàlla bi ñun ñoo la ñoo la garanti woon ne la boo ñëwee Madinatu Munawwara danañ yor sa bakkan danañ yor sa sécurité bu baax a baax a baax ñun ñoo ko waxoon loolu nag delluwuñ ci ginnaaw fas nañ yéene jaayanteeg yow ca duñ ci dellu ginnaaw mukk soo génnee danañ ànd génn yow so xoti won geej gi sax danañ and ak yow jaay suñu bakkan dem bi waxe lol rek yonent bi daldi di muuñ mu dëgër ndax bekk ci li wa Saad ibn Muaaz mi nga xamne moy njital wa waa ansaar li wax yonent bi dal ne kon de na ngeen bekk suñu borom xamal na ma ne génn gi ñuy genn mbégte rek lañ ci jëlé suñ amul njëgg mais danañ am lu gën njëgg ma manam buñ amul alali Abu sufyan je nga xamne mom lañuy wuti danañ amit lu gën lola non bi mu waxee loolu saxaaba yi ci gëm guñ gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp ñu daal di ànd békki loolu ba ñuy demit génn bu njëkk ba amuñu woon intention pour xeex dañoo amoon rek dañoo bëggoon rek buñ dajeeg Abu sufyan nangu njëgg ma del ci waat Madinatul Munawwara waaye yëf ya nam demee ak nam wëlbatikoo moo mujj tax ba ab xeex mujj fa am yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy génn batale na ginnaawam lépp def lim mu war a def lépp muy Madinatul Munawwara ku ñaan Abdullah ibnu Ummu Maktum la denk jakam je modifa di ji amna ci madina ñu bari ñoo xam ne demuñoon ci sahaba yi te ñi ton moy ñi nga xamne ne dañoo wala ñu am gant lo xamne ni l'islam nangoo ko ku ci melni ne usman ci yoon wi la ko bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ana ruqayya sa soxna sa mu dafa tawat mu dem ci nga top tok ruqayya mi nga xamne dom la ci yonent bi alayhi salatu wasallam amana na ay gone yo xamne da leena depp ngir seen at yu ku ci mel ne barra ibn asib ak ku ci mel ne abdullah ibn umar ñi ñepp yoonte bi alayhi salatu wassalam da leena depp ci ngir seen ad yi nim néewe won ci lolu ci lañ makkah al mukarrama ñom julli di ci njital yoonte bi alayhi salatu wassalam tollon ci ñett témer ak fuk ak ñett gis nga lim bobu néew na lool ci walu xex am nañu wax lim bu upp bobu waye li gëna siiw 313 lañ ñaari fas dongu nak lañ yoron ci warway boole ci it juróom ñaar fukki giléem nga xam ne giléem gu ne lu tollook ñetti nit ñoo koy awantoo ci lañ génne madinatul munawwara jëm fa ñu wooye badar fekk abou soufiane moom it am na ay information yu wér ne yonent bi génn na madinatul munawwara mi ngi koy karsi ci la abou soufiane yónni kuñ naan dum dum alxafaar yi yónni ko màkkatal mukarrama ne ko boo demee neel waa màkka muhammad mi ngi génn ca mi ngi mooy kar ànd aku nitam dum dumit mat ndaw ba mu àggee mu xotti yéeram àgg di xeexet joxe information bi joxe boo xam ne nii ba mu ko waxee màkk gépp dañoo aalu ne waaw kay ñun occasion bii lañ doon xaar pour jàmmarloog jullit yi ñu génn ñoom it euh, ci njiital Abu Jahlin tolloon ci junni nit ak ñetti ak lu teg di bàkku rek naan ñun bis bii rek lañ doon xaar bis boo xam ne nii dañuy jàmmarloog ñoom keroog ba ñuy génn sax mboolem kilifa yi màkk yi kenn desut ñëpp a génn àndandoo ñu génn mu mukarrama Eh, jëm ñomit badar pour wara fekk si julli di fofu ci lolu ci la abu sufyaan yegge lolu teggi momit yoon wi jaar ci waneen yoon ba yalla def mu raw mom ba ag mak ci muccu waaye ci lolu la yonent bi amé information ni abu sufyaan teggi na ci la ci la ci la dogu nak ne comme ko wa mak ñi ngi ñëw si ànd akob jees jërul ñuy dëppaat ñun kon nañ ko fasiyene defante ak ñom ci la bi sallallahu alayhi wasallam jitu len njëkk len badar len xaar bañ àggee badar wax nañ ne badar nak turu wi turu nit la ay teen ño fa nekkoon yo xam ni nii ka moomoon ba badar la tuddoon motax ñukoy woyé badar bim mu badar badar euh, escale fofu ku ñaan xobab ibnu munsar mo ñëk wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne fi nga def fi nga escale nak lo ci jublu yoonte yalla bi yalla mo la ko digal wala sa xelum bop la mu ne ko sama xelum bop la mu ko man day gisoon na ñu dem ba gëna a jege ya nga xam bu yéefari di duñ mëna naan ak seenu ciono ak seen Eh, marag lepp lépp mëna mën naan bu ko euh loolu dana bok ci li tax ñu mëna am ndam ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu xalaatam bu baaxa a baax baax ñu dem ba jégué teen yoy non biñu accé yit ku ñaan Saad ibn Muaz momit mi ma waxon légui daal di joxe ben xalaat bu rafet momit ni dama gis ni lañu wara défar ben xayma bo xamni ni nii yonente bi lañ koy défaral mu ne ci biir xayma bi di disok lenn ci capitaine ni wala kum bëgg gisel wala kum bëgg waxal nek ak yow ci biir xayma bobu ñu rafetlu ko bu baax a baax defaral ko xayma boobu tay sax fa xayma ba nekkoon jàkka lañ fa defar ca foofe ca Badar kon loolu ci la jullit yi accès Badar toog di xaar yéefar yi yéefar yi ñu ngi génn si jëm si Badar jàmmaarloo bi nag diggante jullit yi ci njiital yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak yéefar yi waa Màkka ci njiital Abu Jahlin waaye bokk na ci kiimaan yi njëkk a feeñ ci jullit yi bi ñu agsee Badar mooy bi ñu agsee sonn lool ci dox gu metti gog nga xamne ne dox nañ ko digënté Madina ba Badar gëmmentu boole ci fekk yéefar ak seguñ yalla lim jëk def moy waccé climat bu neex ci seen kaw ba waccé fa taw bo xamne ni taw bu yermandé waccé ko ci seen kaw ñu nelaw bu baaxa baaxa baax a baax noppalu yeewu ko ciawarté bu baax bi nga xamé ni ci suba ga yéefar yi nañ ci bisu fukkel bi fukk fukk ak juroom ñaar ci wéru koor ci atum ñaaral bi ci gaday gi ñaari kuréel yëpp agsi ci xuru badar waaye gisante wuñ kenn ku ne yaa ngi ci euh, côté bi nga nekke waaye yëg nañ ne kenn ku ne agsi na bi nga xamee ne kenn ku ne it ñu ngi gëstu sa morom ñaata lim la ak kana ca teew yonent bi mi ngi gëstu yéefar yi seenu lim ñaata la ak kana ca teew bokk na ci ni mu ko xamee mooy yéefar yi dañoo yónni woon ñaari xale yu ndaw yónni leen ndox ca teeni badar yooyu biñ leen yónnee jullit yi jàpp leen yóbbu leen ci yonent bi yonent bi laaj leen ñu ñu bañ rek bañ a wax ñu xëpp leen laaj leen ne leen fu ngeen bàyyi ko ñu wax ne ñoom waa Màkka ñoo leen yónni yonente bi laaj leen seenub lim ñaata la xale yi ne lim bi day xamuñu ñaata lañ waaye ñu bari lañ lool yonente bi ci xarañam mu leen bis bu set ñaata giléem la rey moom la ñuy lekk xale yi ne bis bu set danañ rendi juróom-ñeenti giléem léeg-léeg ñu rendi fukki giléem yonente bi daal ne day seenub lim juróom-ñeenti téeméer la jàpp junni bu teg tuuti noonu ma ko waxee woon noonu la demee muy junni bu teg la yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj leen ñoom kan kan a ci teew ci seeni kilifa xale yi tuddal leen kilifa yi màkk yi yëpp teew daanaka mën nañ ne màkk kenn desut Abu Lahab rek ca teewut waaye ñëpp ñëpp teew nañ euh, Abu Jahlin jiite leen Abu Lahab kon moo teewut ci lañ leen bàyyee ba nga xamee na nag bis bañ war a xeex jot na bañ jàmmaarloo ñaari kuréel yi abu jahlin jite yeferi yi yonent bi alayhi salatu wassalam jite julit ci la abu jahlin waxe yonent bi ne ko bis ni tay nak danañ xam man ak yaw kan mo ci nek ci deug man day sama Yalla dig ne na ne am dam yawit sa Yalla dig ne la nga am dam tay danañ xam kan mo ci wax se sa digeunte sama Yalla ak sa yalla yonent bi ne ko wa baxna yeferi dal di tan ñet nit ne euh, moy xotbata ibn rabiha saybata ibn rabiha ak walid ibn xotba daan ne jullit yi ñun dañoo bëgg tan ñett nit ñi ni bëgg yéneen ngeen tan ñett ñu xex ñu sétan leen bala xex be tàmbali manam da ngeen ni tan ñett ñun ñu tan ñett ñu sétan ñett ñoo ñu xex bala xex be tàmbali biñ ñu lolu sahaba yi ñepp ñu ngi yakamte won yonente bi tan leen waye yonente bi mi ngi tan Ubayda ibnu Haris ak Hamza ak Ali ñett ñoo ñu la tan waye ci ay secondes yu neew rek ci la Sayyiduna Hamza ray say ba miñ ko bolé loon sidna ali ray walid mi ñu ko boole loon xubayda ak xutba bañ ca nekkee hamza ak ali dañoo ñëw sot ñu rey leen kon yéefar yi ñetti ñañ tàndoon ñëpp rey nañ leen ci lañ commencé tiit nag bu baax a baax a baax a baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di defar sàpp yi jullit yi jullit yi buñ daa xeex comme bu ñuy julli ni ñuy sàppee noonu la ñuy sàppee buñ daa xeex moom leen yàllay tagg ci alquran naan inna allaha yuhibbu allasina yuxaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus sun borom sopp na leen lool ci seen sàpp yooyu nga xam ne bu ngeen di xeex moom ngeen def bi mu defaree sàpp yi ba noppi wax nañ ne sax bis bu set guddi gu jot yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi ñaan yàlla sun borom defal ko ndam ak li xam lépp ne yàlla jox na dig na ko ne da nga am ndam waaye teewul guddi gu jot rek mi ngi ñaan abubakar moo daa jékki-jékki taxaw ci ginnaawam naan ko yow yonente yàlla bi sun borom dana nangu sa ñaan wax nañ ne daana teen ci asamaan si yëkkati loxo yi ba kol gim koloo woon day wadd moo koy jël kolalaat ko yonent bi nan ko noppul sun borom dana nangu sa ñaan bi yonent bi defere sàppe ba pare yéefari na ñom pare nañ ci la yonent bi wax sun borom ne ko nak kurel bi di xex ni moy kurel bi la dese ci kaw suuf buñ leen gañee kenn du la jaamooti ci kaw suuf kon yaw yalla nang leen jàppale bu baaxa baaxa baax nang leen dimbali bu baaxa baaxa baax daal di nga bu suuf daat koy xalab yéefari daal ne saaxatil wujuuf pënd bu metti metti daal di jolli ci kaw yéefari ba mel ne gisatuñ jullit yi gaaw dal seen kaw moom la yàlla naan wa ma ramayta is ramayt walakin allaha rama ba nga sànnee na nga xam ne ndimbalul yàlla moo ci dugg ba sànni booba dal ci kaw yéefari xeex bi tàmbali jullit yi mel ne ay gaynde ci kaw yéefari di rey ak a duma di rey seeni kilifa sidna Hamza di rey rey fa mbooloo moo takkoo takku moom Hamza ci loxoom ba malaayika yi sax wàcc nañ keroog ca xeex boobu noonu doon jàppale si jullit yi mom la sun borom di wax ci alquran nan istastakhisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ci suratul anfal yow yonent bi yaron sakku di ñaan yalla mu jàppale la nga xamne tay yonne na la ay malaika yo xamne ñew nañ pour jàppale la xaj na yéen jullit yi du ngeen gis malaika yoy way koy gis malaika yi ñi ngi lo yeferi ñi ngi daw ak tiit ba xex ba xamuñu won luñ doon def wa ansala junudan lam tarauha وعذب الذين كفروا وسالك جزاء الكافرين ci lañ raye yéfer yu baree bari lu mat juróom ñaar fukki yéfer ñu ray leen seen kilifa yi yépp ñu ray leen ca walid ibnu xutba xutba sayba abu baxtari jarrah umayat ibnu xalaf moom nga xam ne moo daa sonal sayidna ousmane sayidna bilal ca màkk moom it foofu lañ ko raye ray nañ ko ray nañ doomam anzala ibnu abi sufyaan doomi abu sufyaan la moom it fa lañ ko raye abu jahlil mi leen jiite woon sax fa lañ ko raye abdullah ibn mas'ud mo jël andil ko yonent bi ne ko bop abu jahlin mi ngi ni ci lolu ci lañ raye ci ñom juróom ñaar fukki nit japp ci ñom juróom ñaar fukki nit ña ca dess daw fofu la xex bi jexé jullit di ñu faat ci lu mat fukki nit ak ñent rek lañ ci faat way yefer yi ak liñ doon bari bari lepp ray nañ ci ñom juróom ñaar fukki nit ca guddi ga ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew naan leen fekk yefer yi ñu teud neewi neewi yefer yi muy keud di leen keud ci tank naan leen ndax la leen seeni yàlla digoon def na ko man day la ma sama boroom digoon jox na ma ko saxaaba yi naan ko yow yonent yàlla bi ñuy faatu nañ de duñ la dégg mu ne ax ah kay maa ngi waat ci yàlla ne li may wax ñu ngi koy dégg waaye kiimaan gi mooy la yonent bi waxoon ne diw fii lay tëdd diw fii lay tëdd kenn ku ne fa mu waxoon ne fa ngay faatoo fa nga faatoo ñu suul leen foofu ñoom yéefar yi ñëpp ca côté ba ca desaat ñu def jullit ya mooy armeel yi suhadaa yi nga xam ne ñoo faatu ca Badar yonent bi alayhi salatu wassalam defna ñetti fan ca badar di lijeenti ñan jàpp alaman yi ñu lajoon ak la ci aju lepp daal di yónni Abdullah ibn rawah ta Madina ne ko bo deme na nga wax wa Madinatu munawwar ne len am nañ ndam lu rëy ca badar ñoo ngi ñibisi ci lañ ñibbisee ñu tertu len fa tertu bu mak ca madinatu Munawwara bu melne bañ len tertu won bañ nekké euh bañ ñew ca gaday kon non la xex bi jexé yéefar yi ca des yëpp daw loolu boo demee ci jës bu da nga dégg sëñ Tuubaa di ko fa nettali na xare ba demee yëpp nettali goo xam ne da boole li ci julli waale ci yonente bi alayhi salaatu lu mat fukki abyaat ak lu teg sallim ala badrin jala du jal xulubi wa ala sawil maqamatil ula wa xisbihi wa azimi ma ngay dem sax bay wax naan Euh, naan yawmun bihi xat xafara ba man xat xadara xitaaluhu rabbul wara kabiratan kalamami nee na suñ borom jéggal na ña fa teewoon ñëpp loolu yàlla suñ borom wax na ko yonent bi ña teewoon dar ginnaaw ba badar suñ borom toppeetu leen dara seen na leer na suñ borom jéggal na leen luñ defaat lu desaat seen dund gi yëpp loolu la sëñ bi wax foofu même malaayika yi nga xam ne teewoon nañ ci xare ba sax mi koy koy nettali naan amaddahu rabbul anaam bi jundi am laakin izaam li xadadin laa lil aam ardaw sawi taadumi muy ay abyaat yoo xam ne na xeex ba demee yépp ni ñu ko nettalee nettalee waale na ko ci jës bul xulub di xasida googu nga xam ne euh, lu bari ci siiratu nabawiya tudd na ko fa kon nii la xare bi jeexe yéefar yi ñibbi ànd akuk jooy akuk jaaxle néew doole ñu nangu alal yi indaale woon yëpp ndax ba ñuy ñëw ak seen bàkku ya ak seen fecc ma ak euh, yooyu yëpp ba ñibbi ay xel lañ ñibbiwaate màkka boole kooki jooy ak seen néew yu bari yooyu nga xam ne ray lañ leen foofu ca badar kon lii mooy xare badar ak la ci aju ci gàttal ci waxtaane jàmbaar joo xam ne xañ na lim dund ci lislaam bariwut waaye ku dib jullit rek ca gëstu tuuti ci dundu yonent bi dégg ngaw turam deg nga jambaram muy Sayyiduna Hamza Jambar jo xamne man nañ ne ñaari at ak lu tek rek la dundu madinatu Munawwara la desat ci wote bi yep fekke wu waye teewut aw turam lu mat junni atangi ni ak lu tek bi fi yonenti bi jógee waye turam fayut julit yi ak gëstukat yi waxtu ne ñing koy tuddu ñing koy waxtane muy ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wowe sayyidu suhada sangum ñi faatu ci yoonu yalla yépp asadullah wa rasulihi ak yalla ga ak yonent bi manam jambar yi nga xamne jambar la ci yoonu yalla ak yoonu yonent bi alayhi salatu wasalam muy sayyiduna hamza ibnu abdul mutalib sayyiduna hamza mi nga xamne abdul mutalib mi jur abdullahi mi jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy bayam. muy baayu baayu tax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina sa ku teel dugg ci lislaam ku teel wàccu wàccub liggéeyit atum ñaareel bi rek ca woote ga ca la dugg ci lislaam waxoon nañ nan la tuube nan la duggee ci lislaam waxoon nañ ko ca bind yële weesu bi duggee ci lislaam gàddaay yoon na ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñëw a munawara sayyiduna hamza mi ngi gané jamono ci atum 568 ci judduk sayyiduna isa sayyiduna hamza mo magé won yonent bi alayhi salatu wassalam lu mat ñaari at ak lu tek tuti don jambar jo xamné ci ghazwatu badrin xare badar ginaaw ndimbalul yalla sun borom ak yonent bi alayhi salatu wassalam bokk na ci ñi tax ndam la gëna a ndax mom naka jek wa màkk dañ ko te bu daa xeex fu mu riir wuti rek wuti rek ñooñu dañuy daal di tiit wala ñu daw bu daa xeexit ñaari loxoom yépp la daa xeexe ñaari loxo yépp la daa yor jaasiit wax nañ ne diirub lim dund rek moom xam sa ci lislaam rey na ci lu tolloog fanweeri yéefar ak lu teg maanaam ñaari xeex yi mu fekke rek yu mag yooyu lim ci rey ci yéefar ëpp na fanweer Seydina bi xare badar jeexee xare badar boobu ñu doon waxtaane yéefar yi màkk yi bañ delluwaatee màkk dañoo kompaloo waxtaan ne comme que ñoom sàkku nañ ci ñoom ñu wutaat ñu dajawaat beneen xeex ci at mi ñu jëm muy Uhud Uhud jooju nañ ci fexe leen rek muy nañ fexe nañ faate Hamza fekk Hamza mi ngi ànd ak ñoom duñ am jàmm moo tax ca xare Uhud boobu nga xam ne ci atum ñetteel ba la xewe woon te danañ ci dikk ca xare ba ak la ci aju ndax xare la boo xam ne nii niñ mëne jël ay bind ay jangat ci badar non lañ ko mëna défé ci Uhud gog nga xamné dañ ca gagné julli di gagné bu metté metté metté moy soxna suñu wax hind in hut euh, bintu hutba di soxna abu sufyan mom mbokam yi ëpp dañ leen ray ci badar bayam dañ ko fa ray magam dañ ko fa ray ay mbokam yi ëpp dañ ko fa ray ci li mbokam yi ëpp yoyun yëpp mom wax na ne Hamza mo len ray motax mu ne mu waton ne dana len fayul yeen sama mbok yi nga xamne fatu ngeen ci Badar am ben jam buñ nan wax ci don jam bo xamne ni ku siiwoon la ci walu jam manam bu massa jël xeejam rek bay sanni fum ko dir rek fofa lay dadi jam biñ ko waxee ne ko lenn rek mooy tax ñu goreel la mu nekkoon nit ku ñuul dëkkoon xabasam fi ñu naan Éthiopie tey Hamza ca xaswatu badrin yow bul yittewoo xeex ba bul yittewoo dara xoolal Hamza rek boo fexee ba rey ko danañ la goreel moom it bi bi xare Uhud amee goog nga xam ne ci moom lañ ko waxoon mu jëlu xeejam wan ginnaaw ndax Hamza kenn ñemewutoon a jàkkaarloo moom daa bàyyi ba man ko ginnaaw mu yor xeej bi ci lako jame xej bi ba sayyiduna Hamza daanu ca xare bobu non di xare Uhud euh xare bobu nga xamne julit yu bare bare bare bare bare bare faatu nañ fa kilifa yu bare ci sahaba yi faatu nañ fa mushab ibnu Umayr fofu la fato sa'd ibnu rabi' fofu la fato Anzala ibn ibnu Abi Amir foofu la faatoo waaye it Seydina Hamza mii ñuy waxtaan it ci xare Uhud boobu la faatoo xam sa bi mu faatoo Hind daa daal di ñëw ndax mbég mbégte tiim jëmmi xam sa jëlu paaka xotti dënn ba génne res wi di ko yëy ngir bañ gum ko bañ waaye dagg nopp yi ak këram yi yëpp def ko caq takk ko di wër màkka di bàkku nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi ñëwee ci jëmmi Hamza ji fekk na lu bari ci cëram ñu dagg mu jooy ci jooy yu méttee méttee métti wax nañ ne demuk soxna Khadija ak demuk Seyduna Hamza ay rongoñam génn na ci yoo xam ne nii mosuñoo gis mu jooyee ko ku fi jóge mu jullee ko ñaanal ko denc ko biñ ko dencee it moom yonent bi mu wax fa sax ay tëkk yu mett yoo xam ne nee na dana ko fayul bàyyu taxam bii nga xam ne moo fi jóge muy xam Hamza ci la Jibril ñëwee nag ne ko dëgg la metti na lool nag waaye buñ la tooñee dangay ngay fay lu toll ne liñ la tooñ rek bul toññar bi sun boroom naan ko ci alquranul karim ci suratu naxli ca jeexal ba wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa xayrun li saabirina buñ leen tooñee ngeen fay lu toll ne liñ leen tooñ bu ngeen mu muñee it moo gën kon Seydina Hamza euh, ci xare Uhud boobu la noppaloo ñu denc ko foofa ca armeel yooyu nga xam ne farañ denc euh, jullit yooyu faatu woon ca Uhud bi fi jógee it bàyyi na fi njaboot lu mat ñeenti doom yoo xam ne nii ñoom it ginnaaw xam sa taxul ñu gudd fan lool la ñoo teel a wàccub liggéey Ammaara Yaala Amatullahi ak Umaama ñeent ñooñu la fi bàyyi woon bi mu fi jógee euh, kon mbokk yi Seyduna Hamza mooy kooku kenn rek nag la bokkaloon ci waa kër Abdul Mutalib ndey maanaam kenn rek la ci bokkaloon ndey ñu naan ko soxna Safiyatu bintu Abdul Mutalib waaye ñi ci des ñëpp ci waa kër Abdul Mutalib yi rek la bokk ak ñoom Safiya moomu moo jur Zubayr ibn Xawaam Zubayr mi nga xam ne mooy sëriñub mooy borom kërub asma bintu abi bakrin moomu ñu doon waxtaane naan moo doon jox lekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy soxna si njëkk am doom ca gàddaayu zubayr yi mi nga yoroon safiya mooy yaayam safiya moom it moo ko Hamza ñoo bokk benn ndey ak benn baay kon euh, sayduna Hamza mooy jëmm ju tedd jooju nga xam ne ku teel a la ci lislaam ca soxna soosu ko faar euh, raylu woon yàlla def na tuub na dugg na ci lislaam muy soxna Abu Sufyaan muy Hind ca fatxu Màkka xam naa buñ ci agsee danañ leeral nañ duggee ci lislaam bi mu noppaloo it yonent bi bi muy jooy bi mu ko tiimee daa siggiwaat muuñ ne gis naa malaayika yi ñëw di jël jëmm ji di ko sàngal seen bopp ngir waajal ko yóbbu ko àjjana kon euh, Seydunaa Hamza mi nga xam ne dafa teel a wàccub liggéey li des ci ay xew-xew ci xew-xew yi ñu war waxtaan yépp wu ko ci l'islam ñu koy ñaanal suñu borom gërëm ko ca taax ñu ci barkeem ngi ñëw ci bind bu am solo muy yàq-yàq yi nga xam ne am na benn groupe bu komplo di ko ko def moom yonent bi ak julli di ca madinatul munawara niñ ko doon sonale màkka nga xam ne ña ko doon sonal moom dañ ko wanoon ne ko bokkuñu sa diine ñun léeg lañ gëm gëmuñu li nga gëm ñooñu ay yéefar lañ mu leer nañ waaye kuréel bii nag moom dañuy ànd ak yonent bi di julli di ànd ak yonent bi di woor di ànd ak yonent bi di def lu baax di xare ak lépp waaye gën a noonu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax teewul ñu ngi doon jokkook waa màkk yéefari màkk yi di jokkoo ak yahud yi nga xam ne yonent bi defoon na ñoom contrat boo xam ne dañuy jàmmoo waaye naafiq yi dañuy ñëw ci yahud yi wax wax leen ne leen alxuraan yi wàcc na ne leen li ak li ak li saaga na seen kii ji lu ne ñu wax ko bañ seen contrat boobu ñu defoon mu yàqu ba yonente bi jot naa def ak guerre ak ñoom kuréel bu nekk ci yahud yooyu nekk munawwar muy ñett yooyu fa gën a siiw muy banu mustaliq banu nadir ak banu gharisa waaye it yemuñ ci ak waa di ko def it waa ak waa màkk loolu ñu ko ginnaaw xare badar la seen kurel bi gëna a feeñ ca ki leen jité won ñepp xamoon ko aw turam ñu xam ko sahaba yi xam ko moy abdullah ibnu ubay ibnu salul koku lañ doon wax raisul munafiqin moy ki jité won nafiqi yépp ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam doonoon mag mo xamne ni mu bari pexé la waye yalla gatchal ko ci alquran lu bare bare bare bari bari na sar yo xamne ni nii yo xamne sun borom jëmm jooju la fay léebu waaye jëmm jooju la fay nettali ay complot yu mu doon def yoo xam ne benn jàllu ci mooy Abdullah ibnu Ubay ibnu saloo ba sun borom wàcc aw saar sax ci ñoom tudde ko sóoratul munaafiquun mooy saar woo xam ne nii euh, ci naafiq yi rek lay wax muy naafiq yooyu nga xam ne ñu ngi woon madinatul wara bari ay xare yoo xam ne ci xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoo tax sax ñu gañe fa jullit yi wala ñoo tax sax ba ngañaay la nam waroon a na deme deme dëgg dëgg dëgg demewu ko ngir pexe yoo xam ne def nañ ko bokk na ci xare bii ñu doon wax ne ci lañ faate Seyduna Hamza muy Uhud ñoom bari na ay yàq-yàq yu fa def bokk na ci yàq-yàq yooyu ñoo fa def mooy ñoo doon siiwal déclaré di siiwal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat faat nañ ko ba loolu siiw ba ñu baree bari bàyyile ko ci saxaar yi jàpp ne wax jooju lu dëgg la waaye yemuñ ca beneen kuréel boo xam ne ñu ngi doon siiwalaat di wax nit ñi naa leen man ngeen a yeewee ko yonent bi joxe ne ndigal ne man ngeen a yeewee ko ba ñu bari yeewee ko ndax duñ leen xàmmee mënuñu leen doon xàmmee ndax ñoom buñ ñëwee ci jullit dañuy wane ak baax nga teg leen ñu baax te nekkee baax googu ñuy wane nekkut ci ñoom. loolu suñ borom mi ngi koy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci saar woowu nga xam ne tudda na leen ko naan wa ay isaa raaytahum aji ajsaamahum soo leen gisee rek da ngay yéemu ci seenu col ak seenu melo fekk la ne ci seen biir moom moo gën a ñaaw gu yéefar moo gën a ñaaw lépp luy ñaaw kon ci xare Uhud bari na yàq-yàq yu ñu fa def am na xare bu ñu naan gazwatu Tabuk xare Tabuk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujje def ci dundam ñoom it doon nañ wër di wax nit ñi naan leen climat bu tàng bi naaju dafa tàng bu wootee na ngeen fexe bu leen dem wuy ji waaye yàlla gàccee gàccaar gàccaar leen beneen yoon jibril wàcc ne ko am na kuréel buy wër naan nit ñi bu leen génn ci naaju tàng bi waaye yow tontu leen ne leen sawara moo gën a tàng laa tan firoo fil xar laa tan firoo fil xar xul naaru jahannam asaddu xarra law kaanu yafqahuun waaye it am na xare boo xam ne biñ yàlla gën a leen gën a gàcceele sax ba far wàcc saar yi xare boobu xasootu ba ni mustalaq lañ koy wax mooy xare bi nga xam ne euh, famille boobu ñëwee banu mustalaq nekkoon ci madinatu munawara ci atum juróomeel bi la yonent bi doon xareel doon xeexal xare boobu nag dafa am ñaari nit ñu doon xuloo ci saxaaba ba jotoon a xeex ñaari nit ñooñu kenn ki ñu ngi koy wax Juhja ibnu Saïd ci mu muhaajirun yi la bokkoon maanaam ci ñi bàyyi ko woon màkk ñëw Madina ci la bokkoon ki ci des Sanaan al nii la tudd maanaam as ngóor la soo xam ne nii euh, surgëb Abdullah ibnu Ubayya mi jiite naafiq yi ci la bokk dañ doon xëccoo am ndox ba waajooju bàyyi ko woon màkk pes ki nga xam ne moo mooy surgëb abdullah ibn ubay mi njiital nafiq yi bim ko pesee rek di yuuxu daan gis ngeen liñu suñu gan ñi def yeen wa ansar ñew leen dimbali suñu ñew leen dimbali suñu di wax wax ju mel non nan leen xol leen li suñu doxandéem bi di ñi def gan go xamne dafa ñew ñu dalal ko mu di ma dóor biñ waxee lolu comme mom surgab abdullah ibn ubay mi jitt naa feqi abdullah ibn ubay mo jugal bopam ñew ba ci mbolo mi ne leen gis ngeen lii de waaye daal li ma di wax mooy da ngeen fexe ba buñ delloo buñ delloowaatee madinatul munawwara na ngeen xam ne ñu baax ñu tedd ñi danañ génn ñu bon ñu ñu torox ñi ab léebu la bu mu wax la in rajax naa ilal madinati la yuxrijanna al aadu minha al azalla waaw buñ delluwaatee a munawwara ku tedd ki ku baax ki wala nit ñi nga xam ne ay noble lañ danañ génn ñi nga xam ne ay ay doxandéem lañ bi ñu waxee loolu am ci saxaaba yi bu baax boo xam ne fekke woon na seen jataay ba kuñ naan Saydu ibnu Arqam dem dégg ko dem ci yonent bi ne ko ab laay nu ibnu Bayr dégg naa mu wax ab léebu nee na nangam ak i nangam biñ ñëwee ab Ablaay ibnu Bayr waat ci kanam yonent bi ne waxuma ko Saydu nu Arqam moom mu ko déggoon xaw a rus lool ndax moom nit ku baax la waaye ci kanam tuuti Jibril ñëw ne ko يقولون لئن رجحنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل امنا نيو كو دون واخ دغ لا لسيد بن الارقم واخ دغ لا دغل كو كون عبد الله بن ابي موم بارينا لوم ياق في الاسلام واي ياق ياق بي غنا ريغا خامني موم موي بي غنا نياو بيم ديف موي دافا دغ جو بير كير يونتي بي دي جاخاسي موي توما جوجو نين دغ لو باري باري ني توما لان كو سخنا عائشه ني دارون da doon def lu ñaaw dañu yàlla jéggal sax ci kàddu gi ba tuddu njaalo am kuñ tuddu kuñ naan safwan tuumaal ko ne ñoom ñaar lañ doon def loolu siiwal ko ci madina gi yépp ba mu siiw ba yonent bi woote woon ci réunion di laaj ak a gëstu li góor googu wax ndax dëgg la ba àggoon ci sax ne soxna si mu dem ca kër ga ba keroog yàlla di ko setalal boppam loolu abdoulaye ibnu bayam moo ko njëkk a génne ci làmmiñam ca loolu ko defoon ci xaswatu bani mustalax bii ma wax ñu naan ko xaswatu mu loolu it doon xew-xew boo xam ne nii buñ dikkee bu soobee yàlla ci loolu la ñuy waxtaane muy xew-xew ba tuuma jën tegoon soxna Aïsa ak ni ko yàlla setale kon Abdullah ibn Ubay yëpp bari na lum yàq ci lislaam waaye it yàlla toroxal na ko bam teel a faatu ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu faatoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo sàkku ci yonent bi ngir mu ñaanal ko jullee ko waaye suñu borom xamal na yonent bi ne ko soo ko ñaanalee soo ko jullee lépp na nga xam ne du tax mukk yàlla jéggal ko waaw suñu borom xamal na yonent bi ne ko ñoom ñëpp ku ci faatu ci ñoom kuréel boobu noonu nga xam ne ñooy naafiq yi ci a wara moo xam nga ñaanal ko wala ñaanaloo ko waaye yàlla suñu borom du nangu ñaan kooku waaw sun borom di wax ci suratul munaafiquun kooku ñu wax léegi naan ko sawaun alayhim استغفرت لهم am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum moo xam sàkku nga ci ñoom ñu jéggal leen wala sàkku woo ko du ma leen jéggal mukk ci àdduna kon naafiq yooyu nekkoon madinatu munawara kuréel lañ gu bari boo xam ne ni Abdullah ibn Ubayy moom moo leen jiite woon ba suñ borom yëmut ci loolu sax waaye daa wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ku faatooti ci ñoom jox ko seeni tur ne ko diw ak diw ci la bok waye ku ci faatu na nga fexé ba bul dem ci bammel ba bu ko julé wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum wahum fasiqun surat tawba motax nafiq yo bi xamone na limbi ba waxon nako sax kooku ñuy wooye xusayfa ibnul yaman nga xamne mom lañuy dakantale ki xam yonent bi moy aminu sir sahibu sir waye yonent bi da ko joxon digal nako bu len bu ko wax mukk te nang len bayi non lim bi ñom ñëpp faatu nañ ci kanam jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye ku ci faatu rek euh, yoonte bi day joxe ngànt ne du ko julle motax ñu bari ci sahaba yi am na ko xamone buñu gisee nit ku faatu ci yoonte bi julle ko ci amul ben ngant ñu xamne ne nafiqi la bokkon kon nafiqi yi day bax lool ñu wax ko ndax dafa am ay xew-xew yu bari yu bëgg ñew ci kanam yo xamne ne ñom amna am ci def bokk na ci xew-xew yooyu mooy bii ñu war a waxtaane mooy tuuma jooju ñu tegoon tegoon soxna Aïcha ndax na kuréel ba amee woon démb ñu ngi koy gisaat tey nit ñi doon jëlee tuuma di ko teg ci ñu baax it ñu ngi koy gisaat tey loolu buñ ko jàngatee danañ gis ni suñ borom seetal la soxna si ak ni soxna si amee jom ak fulla ji nim ci ànde ba yàlla suñ borom seetal ko ci loolu xew-xew bu rëy boobu nga xam ne xewoon na ci atum juróomeel ba ca xare boobu yi ñuy woowee xar xaswatu bani mustalaq muy ñaawteefu rëy wu doywaar waar woo xam ne nii naafeq yi ñoo ko siiwaloon teg ko ci derub ku tedd bokk ci soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy sayidatuna aïsa bintu abi bakrin soxna aïsa moom nga xam ne waxoon nañ ne euh, moom mbokkam yépp ay magam ay rakkam ay waajuram ay maamam ñëpp ay jullit lañ dugg nañ ci lislaam doon ay saxaaba ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk ci soxna yi nga xam ne bari na luñ xam ci diina ji mu bàyyi ko ci moom ndax yonente bi moo ne woon dem leen ngeen jànge ci moom ndax lu ëpp ci diina ji mu ngi ci dëndam bi ñaawte foofu ni mu demee woon mooy xare bu masaa jot ab xare bu masa doon rek bu yonente bi dem rawatina bi mu nekkee madinatu munawara kenn ci soxnaam mi la daa àndal ndax xare yi léeg-léeg daana am ay fan wala mu am sax lu ëpp weer moo tax dañ daa ànd ak kenn ci soxna yi rek da daa dem soxna su de war a dem nag dañ ko daa defaral giléem goo xam ne dañuy defar lu mel ne néeg kaw giléem ga lu néeg lañ daa defar ci kaw giléem gi bu defee soxna su soxna su war a dem rek ci soxna yonent bi foofu la daa nekk waaye xare bu masaa amit yonent bi sallallahu alayhi wasallam tànn kenn ci saxaaba yi ne ko del bàyyi ñu jiitu la lu yàgg yàgg yàgg nga topp ci ginnaaw ngir lu reer mu man ko for lu wad mu man ko for ku reeru nit mu man la ginni xare bi nak sahaba bu tedd ku baax kuñ naan safwaan ibnul muattil mom mo aaye woon pour waroon na ci ginnaw jaysi bi ginnaw mbooloo mi léegi nag jëm banu musalex pour wara xare ji biñ xare ba pare bay depp fiñ defoon escale taxaw fa di noppalu foofu noonu soxna si génn ci néeg bi nga xam ne ci la nekkoon ci kaw gilem gi bi gilem gi yësee ba mu génn amoon aajo ci boppam demoon doon faj aajo ci àll bi bi muy dëpp si nag caq bu mu mu di ko wër ba xaw a yàgg ci yoon bi bu ko defee mbooloo bi ñuy dem jàpp nañ ne soxna si mi ngi ci biir gilem gi mi ngi ci biir néeg bi ci gilem gi ñu jàpp ne mi ngi ci fekk néeg ba dara nekku ca ñoom ñu daal di dem soxna Aysa bi mu dëppee ñëw xool fekk jaysa ba dem nañ mu wër wër wër ba sonn fekk leen yu dem mu yéeg ca kaw montagne ba daw ci penku sow fu ne mu dem woote mbooloo ma jàpp na mi ngi ci biir néeg bi mu toog foofa ba yàgg fa wax nañ ne dafa doon jooy sax ba far nelaw fa ngir jaaxle ndax daa doonoon gone lool nag ndax booba bi xew-xew bii di am euh, fukki at ak juróom sax amu ko waye fam teud di nelaw koku nga xamne mo ay won warona top ci ginaaw mbolo mi muy safwan di dox bam yag mu seen soxna aisha ñom no ñu nonu ñu daa solo ñom soxna yonent bi rek ciol gu yiw gogu jot ak ci sax bam seené muy soxna soxna aisha rek da jek jek du moyu tuddu yalla ca kaw ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun war ma juñ jox soxna yonent bi sax taxna xolut xar kanam gi ak si wutit soxna ci kaddu gi daal di yewu safwan fekk na bob mi ngi ben gilem juñju gon soxna ci ne ko na yek yëg ci gi soxna ci yek ci gilem gi safwan di womat gilem gi bokut ak mom ci kaw sax ndax warmal ko waye mi ngi womat gilem gi soxna ci yek ci kaw ñu wuteeg mom madinatu munawara ci fajar gi lañ aksi waye bi ñuy dugg madina dañu dajé gor gogum ñu waxon ne mom mo jitto nafiqi mu yam ci ñom gor gu daal di yuuxu daal ne ñaar ñi de fañ nekkoon nangam ak nangam def nañ ko fa wax fa lu wax lu ñaawa ñaawa ñaaw Siwal ko nak ba lolou siw ci madinatul munawwara gi yep ba ag ci nopp bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi am ci lu ci metti lol waye momin mu def li nga xam mom la kilifa def moy mu laaj ci nit ñi kenn ku ne mu laaj la ñam laajon nak ñetti kuréel lañ am na ci ño xamne leen rek dañ ne ko munta am ta soxna si ku tedd la lu baax rek lañ xam ci mom bokku na ci lolou muy ndam bobu ñu daa wax abu ayub al Ansari ak wa kërëm yëpp bi leen yonent bi laaje loolu lañ wax waaye am na ci ñoo xam ne ñoom dañoo maandu ci yëf yi dëggaluñ ko wuñ ko dañ cee maandu ku ci mel ne sayyiduna ali bi mu ko yonent bi laaje moom dane ko ah loolu daal euh, yàllaa xam waaye daal maa ngi lay xamal ne la soxna Aysa rek du fi jigéen soxna si sax ba mu déggee loolu Sidna Ali wax mooy mere googu mu ko mere woon ci mbooyu mbokk yu bari doon ko laaj ci ginnaaw loolu moo ko waaye ñetteelu kuréel bi moom ba mu leen laajee dañoo saxal ne loolu lu am la ndax Abdullah ibnu Ubayy mag la ca mag lu mu wax rek dëgg la loolu ñu bari ci naafiq yi waxoon nañ ko waaye am na ci lenn ci saxaaba yi ñoo xam ne nii wax ji yóbbaale woon na leen bañ saxal ko ku ci mel ne tax Mistah ibnu Usaasa ak ku ci mel ne Xasaan nu Saabit mu siiw moom mu ngeen dégg bokkoon ci waykat yu mag yi doon wayal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ko dëgguloon ca la bokk waaye it bokkoon na ca saxaabiya buñ doon wax am na Amnata bintu Jaxsin moom it bokkoon na ci ñi ko saxaloon coow li bari lool soxna sa sàkku ci yonent bi sallallahu alayhi mu may ko mu dem kër kër yi mbokkam ba keroog yàlla di wax ci biram soxna siit bi muy dem amoon na lu ko leer ne bis dana ñëw sunu borom dana ko setal waaye nee damaa yaakaaroon ne suñu borom bu may setal ci gént rek lay ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi waaye yaakaaru ma ne am naa maqaamam moo xam ne nii suñu borom dana wax ci alxuraanam ju tedd ji sama mbir bi mu delloo kër kër yi waajuram yëf yi yàgg lool lu mat weer wala lu ko ëpp suñ borom maandu ci yëf yi bàyyi leen madinatu munawwara nit ñi di ci commentaire di ci wax di ci yokk ba wax ji siiw lool lu nañu ñu ko ci léeg-léeg sax yaayam wéet moom Ummu Rumaan di ko laaj soxna Aysa naan ko euh, man dey defuma ko su ma ko defoon loolu ñu may tuumaal man damaa jéggulu yàlla waaye su ma nee maa ko def jéggulu yàlla bis dana ñëw yàlla dana ma gàcceel ne ma euh, defuma ko ca boobaa danaa wax lu amut moom daal li may wax rek mooy la bàyyi yuusufa waxoon ba ko suñ borom tegee wa ca loolu mooy fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala ma tasifun fas na maa yéenee muñ muñ gu rafet te gëm naa ne bis dana ñëw suñu borom lii ñu may waxal mu setal ko bañ demee ba mu yàgg rek ki la jibril ñëw andi lu mat fukki aaya yoo xam ne nii da cee setal soxna si dal ci julit yi dal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp bi aaya yi wàccee dañ doon yéene ci madinatu munawara naan soxna ay sa bégal yéen waa kër abu bakrin bég leen suñu borom setal na leen ba ngeen set wecc aaya tàmbale ci innal lasina jaa'u bil ifk ca sóoratu nuur ca tàmbali ba suñu boroom naan ñi nga xam ne ñoo indi xibaar bi xibaar bu bon bi ñooñu day dañoo bëggoon a taqal soxna Aïsa waaye ay daraja rek la koy yokk innal lasina jaa'u bil ifk xusbatun minkum laa taxsabuhu charra laa taxsabuhu charra lakum bal huwa xayrun lakum li kulli mri'in minhum maktasaba min al ismi yéen ñi nga xam ne yéen lañ teg tuuma ji seen kaw muy Abu Bakrin ak doomam nangeen fexe ba bu leen ko jàppee lu ñaaw waaye lu rafet da ci yéen day yokk seeni daraja daal ne julli li sax yéen li ngeen def ñaaw na torop lenn ci yéen ba ngeen ko déggee xibaar bi lu tee ngeen sàkku ay seere ngeen ki ki wax ne loolu am na ngeen ne ko ana seere yi dëggal li nga wax su andi ay seere yu wér yu maanu ngeen xam ne li mu wax wér na su ko andiwut ngeen xam ne li wax du dëgg waaye mu wax rek ngeen jékki-jékki ànd ak moom ci la mu wax di ci teg lu ñaaw di ko wax loolu sunu borom nee na lu ñaaw la lawlaa istamehtumuhu sanna almuminuuna wal muminaat bi anfusihim xayra wa qaalu hada ifkun mubin lawlaa jaa'u alayhi bi arbaati suhada fa in lam ya'tu bi suhada fa ulaika inda allahi humul kaadibuun waaye yéen ngi nekk ci di wax rek sun borom daal ne burutoon yërmandeem ju yaatu ji day dana leen teg musiba bu rëy rëy seen kaw walaw laa alaykum wa fi dunya wal axirati la massakum fii ma afattum fiihi adaabun adim waaye li ci gën a ñaaw mooy yéen yeneen ku ko jot jot li ko sa morom ku ko jot jot li sa morom di ci yokk loo xam ne ni dara leeru leen ci istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluuna bi afwaahikum maa laysa lakum bihi ilmun wa taxsabuunahu hayyinan wa taxsabuunahu hayyinan wa huwa inda allahi adimun ngeen jàppe ko lu woyof rek te xamu leen ne lii lu rëy la ci yàlla ay yu bare bare bare bari yoo xam ne wax na ci setal ci soxna si waye yemu ci sax santane kep ku saxalon ne yef yi amna rek duma len ko jurom ñet fuk yar motax sahaba saxaaba mu tudon yep teñ waxon saxal moy ñi nga xam ño saxalon waxuma ñi ci mandon waye ñi nga xam ño saxalon lu am la ñu duma len jurom ñet fuk yar euh na ci ño xam bañ len duma ba nopi dañu demat ci soxna Aysa jéggul ko baalu ko soxna ci baal waye bi ay soxna mi nga moy wajuru soxna aisha daa wax soxna Aysa da ko jugal taxaw sant yàlla suñ boroom setal na la jugal taxaw sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye soxna si dane ko man kay su may sant suñ boroom dong laay sant waaye yonent bi kay moom mi nga xam ne euh, biñ waxee wax ji moom euh, da doon xaar yàlla lum wax mu doog a féeti foofu kon bu may sant sant yàlla mooy li gën a yàlla kon mbokk yi lii mooy xew-xew bi nga xam ne moo xewoon ca madinatul munawara ca naafiq yi euh, tegoon ko ci derub kenn ci boroom xam-xami lislaam yi kenn ci euh, soxna yonent bi yàlla tedd bi nga xam ne nee na ko woon yow yaay sama soxna fii ci àdduna yaay sama soxna ca àjjana incha allah kenn ci ki nga xam ne yonent bi nee na sun borom moo ko digal mu denc ko muy ku tedd di doomu ku tedd muy sayyidatuna Aïcha sun borom setal ko nu mel ne lam setale woon sayyidatuna Mariama alayha salaam mu doon ay aay yoo xam ne mi ngi ci alxuraan du lañ mukk ba àddinay tukki nekk ci sóoratu nuur ca tàmbali saaro euh, muy lu rëy loo xam ne nii daa mujj yokk darajey soxna si waaye wàññu dara ci moom mu doon loo xam ne nii képp ku ne ci jamono yi tey war nga cee mën a ci anam yëpp ñu ñëw ci xissab soxna su tedd soos ñuy woowe saynab bintu Jaxsin bokk ci soxna yi yonente yàlla bi alayhi salaatu wa salaam moom nag ni ko yonente bi denc daa doon xissa boo xam ne sun borom moo ko tegal boppam moo ko nettalil boppam ci alxuraan loolu moo tax ñu tànn ko bëggoon ci andi ay leeral tuuti rek Seynabu bintu Jaxsin kuñ naan Zaydu ibnu Xaarisata moo ko njëkkoon a yor moo ko njëkkoon a denc Zaydu ci kër yonent bi la yaroo yonent bi lañ ko joxoon ba mu doonee gone mu yaroo fa doonoon ab liggéeykat ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa di liggéeyal yonent bi bokk ci famille boo xam ne nii ay ay jaam lañ woon ñoom Zayd waaye na bintu Jaxsin nag moom yàlla dafa defoon mu bokk ci askan wu tedd woo xam ne nii. Euh, ci ndey ci bàyyi ci askan yi gën a kawe ci wàllu ci màkkatal mukarama ci la bokkoon waaye Zeydu moom it ab jaam la woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon Zeydu ne ko dama laa bëgg a may na bintu Jaxsin Zeydu it xawoon na ci am ay jaaxle tuuti ndax jàppoon na ne daal moom ku bokk ci jaa ci ay jaam nan lay demee ci soxna su mel noonu ñu di ko yore waaye yonent bi sallallahu alayhi wax rek ba ne ko daal dañ la ko bëgg a jox Seyna Bintu Jaxsi biñ ko ko waxe momit amone na it lu ko ci xawona jaaxal tuti moy ci tambali ba euh, nanguutoon waye bi alquran wacce ne wama kana lil muminin wala mumina isa khadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul qiyara min amrihim wa man yahsil laha wa rasulah faqad dalla dalalan mubina ci suratul ahsab sun borom di wax nan yalla ko yonentem buñ beugé dara ab julit amut droit di choix leneen lañ bëgg bi Zeynab in bintu Jahsin déggee aay yooyu daal ne kon man nangu naa li yàllaa ko bi yonenteem bëgg mooy ñu may ma Zayd yonent bi daal di fas sëy bi ñoom ñaar ñu ànd jamono jooju yëpp nag Seydou dañ ko daa woowee Seydou ibnu Muhammad li taxoon loolu mooy ci kër yonent bi la yaroo bam doone gone ba ni mu mag ñu ko daa woowee Seydou doomi Muhammad boobu araab yi dañ daa noonu di jël nit di ko doomoo bañ sax ay kay eh, bu koy wo sax dila diu ko diu. nan diw domi diw loolu it eh, neexut sun borom sun borom da bëgg képp ku ñuy wo ñu diko wo ci turu bayam wala santu bayam loolu la ko téré bo demee ci suratul ahsab da nga dégg mu nan li abaihim huwa aqsatu indallahi bu ngeen dee wooweti nit ñi dee leen wooy seen turi baay seen santi baay loolu day mooy li gënal yàlla daal di waxaat ca biir ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyina wa kaana allahu bi kulli shay'in alima muhammadu day du bàyyi kenn ci yéen yéen saxaaba yi du seen bàyyi bu ko kenn di jëlat di ko bàyyoo di ko bàyyile sa bopp ndax loolu it bu amoon buñ demee ba ca kanam kanam mën naa indi ay jaxasoo ak wax yu baree bari ci wàllu askan ci lislaam daa fonk lu jëm ci wàllu askan lool kon kiñ doon woowe Seydou ibnu Muhammad ca yàlla tere ko ne di leen ko woowe turu baayam léegi nag ñu dem di ko woowe Seydou may nañ ko soxna soo su ñu waxoon léegi muy Seyna Bintu Jaxsin Seyna Bintu Jaxsin yaayam Abdul Mutalib moo ko jur Umayma la tuddoon soxna Umayma kon day mel ne doomi bàjjenu yonent bi la ndax yaayam ak baay yonent bi alayhi salatu wassalam ñoo bokk ben baay di abdul mutalib waye dañu dem ba ca bir saydu say waxtu woni mi ngi doon ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko ko soxna ci dal ñak deggo gu ñak deggo doon ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu tas diggante bi waye saa yu ñëwee yonent bi nako euh teyel sa soxna ci teyel rek nga muñ waye dañu dem bam yag rek jibril ñew ci ndigal suñu borom xamal yonent bi neko lolu loolu saydu bëgg muy ñu tas diggante bi euh, nañ ko tas suñ borom nee na ànd na ci waaye yëmu ci de ne ko nee na sax buñ ko tasee ba iddaam jeex na ko takk yow yonent bi nag yëf yi xaw a diis lool ci moom mooy kii ñu doon woowee Seydou Ibnu Muhammad muy jël soxnaam loolu moom day waaye yàlla daa bëggoon a xamle foofu jàngale fa ne Seydou du sa doom waxuma la du sa doom sax waaye sañ ngaa jël soxnaam su ko wàccee. ci la yalla sun borom di netali histoire bi yep mi ci suratul ahsab sun borom nan fan lama gada minha wataran zawajnakaha likay la yakuna ala almuminina harajun fi aswaji adhiyaihim isa khadaw minhunna watara tëj ay bi nak wakana amrullahi mafula mo nga waral turu zaid bi wad ci alquran fi ne mbooleem sahaba yep mu ci turu ken turu abubakar nekku ci alquran turu Omar nekku ci alxuraan turu Ousmane nekku ci waaye Zeydu rek la aw turam wadd ci alxuraan ci suratul ahsaab te li ko waral mooy sa boobu ñuy nii nii nii problème bi am nii moo tax suñu borom ne bi Zeydu pare ci soxna si ba iddaam jeex jox nañ ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu denc ko te a ngeen xam ne nag mbirum yàlla wala ndigalul yàlla rek dañ ko war a jëfe loolu la tëja aay bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jëfe ndigalul loolu daal di denc na Bintu Jaxsin kon na Bintu Jaxsin lii mooy sababu denc gi ko yonent bi denc mooy woote wooye gañ doon woowee saydu moom mu nga xam ne moo nekkoon boroom këram di ko woowee Seydou ibnu Muhammad ba mu siiw lool ci mag suñ borom tere ko ba noppi wanewaat ne munta nekk mooy jox ndigal yonent bi sallallahu alayhi mu denc soxnaam soo xam ne nii dafa tàggoon ak moom te li ko waral mooy ñoom ñaari mënuñoo a ànd yonent bi it bi muy may say Seyna Bintu Jaxsin daa bëggoon a xeex lu jëm ci wàllu askan muy diw ak diw mënuñoo ànd loolu la bëggoon a xeex ndax jamono jooju loolu dafa amoon ñu doon wax naan ab jaam wurtu takku sang nangam nangam ba loolu siiw fa yonent bi bëgg wane ne loolu lu war a mën a nekk la jël soxna su xam ne nii ci askan wu kawee la bokk boole ko kii nga xam ne amul benn mbokk ci màkkatal karama wala ca madina muy doxandéem foofa muy sayid mu may ko kooku loolu la bëggoon a waxee wane ci lislaam rek ne lu war a mën a nekk la waaye it yàlla it wane fa leneen muy ab uh, diggante boo xam ne nii la tàmbalee ci Zayd ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari na lu bare bari luñ fa mën a jàngate na tax Seyna Bintu Jaasin bu masaatoo ko ñoom soxna Aïssa ak soxna yonent bi daana am lu mu daan damoo seen nan, dadaa wax naan yéen day kenn ku nekk ci yéen sab seeni fas waaye man sama sëy ci asamaan lañ ko takke sun borom moo ma may yonent bi mu doon ay aay yoo xam ne nii yàlla moom moo ko ci sama ji jox ma ko tedd ki muy yonent bi sallallahu alayhi wa kon lii mooy diggante Seynab bintu Jaxsin ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu bokk ci soxna yu tedd yi nga xam ne ña nga woon ca kër ga ca Madinatul Munawwara comme liñ ko waxee woon rek soxna yooyu la tàmbale ca Xadija ba ci soxna Maymuna mi mujj a denc fukki soxna la ñun ak benn yoo xam ne daanaka ñu ci ëpp suñu borom moo ko ci jox ndigal na ko dencal diw am na ci yoo xam ne ni wax yu lay doon rek du ñëw ci alxuraan waaye bu soxna na bii rek moo ñëw doon ay aay yoo xam ne daa des ci téere bi yàlla bi ñu di ko jàng euh, soxna yooyu danañ ci ñëw tudd leen ñiñ ci tuddagut wax fiñ bokk ak ni diggante bi amee kon euh, lii mooy histoire Seynab bintu Jaxsin gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam denc na ko ca ki ko njëkkoon a yor mooy Zeydu moomu ñu tudd Seyna bint Jaxsin moom it doonoon soxna soo xam ne ni ku tabe la woon ku mënoon a joxe ku mënoon a jaamu yàlla ba daanañ ko dàkkantele sax ummul masaakiin mooy nday miskin yi ngir mënoon a joxe rek daa mënoon a séddalew ñam joxe alal bañ tudde woon ko ummul masaakiin doon it ku mën a jaamu yàlla ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam la waccu liggey ci atum ñaar fukel ma ak ben euh ci khilafa sayyiduna umar ci la fatu ñu denc ko baqih bim fatu yit sayyiduna umar moko julle bim waccu liggey amon na juróom fukki at ak ñet rasuluna ahmad sallallahu عليه لي بانت به علاه رسولنا أحمد صلى الله عليه لي به علاه بركة المختار لا تداها في أبد وسبق لا يداها